ajalilaahi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér sëriñ Abibu Mbàkke jëwriñ Touba ca kanam nooru daara yi ni Touba ca kanam wéy di yaatal ay cellulam ci mboolem réew yi ginnaaw bu mu amee réew yoo xam ne am na fay cellule Touba ca kanam di tàllal ay loxoom mbokki jullit ak mbokki taalibe yi nekk ci réew yi ñuy bëgg a lim Sierra Leone Tchad Russie Libéria Ukraine Roumanie ba ci Californie Touba ca kanam am yéene taxawal ci yooyu la réew ay cellule ngir ànd ak mboolem taalibe yi liggéeyal sëriñ Touba bi su ngeen ci bëggee ay leeral mën ngeen jokkook sëriñ Abou

misras mi abi jaayi xayri ma nabaat